jotaay yi yu mat a bàyyi xel la jubluwaay yi wëttukaay yi lu mat a bàyyi xel ndax kat mbir mi du sottee fii waxuma kaay waxuma Dakar jënd suuf bi yi yàlla na rëy na rëy goo xam ne xeju fi moo waral di wàqi suuf di ñu fa denc kenn kenn ba nu yemb mu pare fa muy pare pare la muy pare jóg loolu wax ak nun yëf yi du sottee fii du sottee nii njàccaar la nu jëm lu dara umpul te kenn du ko teggi kon ku fab sa bopp bàyyi koog ñëpp bu kootul laa sa a teeri fu la naqari te wax naa barki démb ne de santar bu juutoo juutoo juutu nga sol dal la yor sax bayax ponkal mu bari doole ba la bu la yàlla dimbaliwul sa ñedd laal suuf montagne bu juutoo juutoo juutu nga sol dàll yi tax bayax nga ndamu bari doole doxe la gannaaw bëmax la bu la yàlla dimbaliwul sëb ji laal suuf te àddina desaan sar la bakkan ak seytaane dàll yi tax la iblis bari na doole ku fàttaliku keroog ba muy gonge kook yàlla seen ñaari baat ya ñu sànnente ku ne dëngalu bu fekkoon yàlla mën naa jublu fenn jëm feneen yàlla mënula jublu fenn mënu jox gannaaw fenn fépp la nekk ñépp la jox kanam waaye ma ne su meloo woon melow mën a dumóoyu ba mu waxanteeg saay-saay boobu mu dóor ko laamu xasmu borom bi tontu ko laamu xasmu ñu joxante ginnaaw kon lañuy wax ku ne dem imaamu xasaali bu mën a jàng bi am na ku kone ne ci critique foo dëggaloo na yàllaa nga fépp ci ñépp mu ne ko ñaari taatombe mu xaatam arab bu ne la anta rek dangeen jàkkaarloo mu ne ko li tax ma xam ne yàllaa ngi fépp anti Moustapha yeeg guddi gi ñaan nga ak anti yunusa ga ca biir jën wa ca biir géej ga ca biir doj wa rasol bi mu demee ba bëtt pays yi ba ñu jeex mu dem ci limite bi mbindeef mën a yem jibril ma ko amatul droit jàll taxaw di lox mu ne ko doxal mu ne ko benn jeego rek bu ma ko yëkkatee tee leera aras lakk ma mën na yaanti mu ne ko afi misli haasa yutrikul qalilu qalilahu place bu dawe yaram ni raklo ni xarit nek na fa wacca xaritam te yama indi ba fi mu ne ko amatuma droit dox wa ma minna illa ma qamun ma'lum wa inna lana nusabun wa inna lana mustabi'un droité mustafa jall ñu nan ko jegeñ sir nan Jibril reculer arrière ila khaba khawsi fofa sax am nañ fa benn am nañ fa benn am nañ fa benn ngëneel boo xam ne keroog la xew foofu ndax ne nañu ba nabi doxee lu tolloog ay jéego dafa wàññeeku waaj ñëw ci jibril na ko comme fii nga sañ a yem te wóor na ma ne am nga soxla ci yàlla te maa ngi jàll luy sa yóbbante ma waxal la ko allahu akbar mooy aynu rahmati rabbaniya waa joojoo yàqutatil mutaxaqiqatil xaayita bi markazil wuhumi wal maani نبيل نور الاكوان المتكونة العدام صاحب الحق رباني موي ادمي دي رباني موي البرق الاستاح فمكو دفي بير موزون الارباح بمسوتي بسبت مالية لكل متحرك مخم بوهور غير ولا عوا امولا بن اجو بو بغ ما واخال لكو جيبل نكو اكي بو دمي نيل bu bés péncaa ba ñu gàcc siraat ci jaanama di oote nit ñi pour mu ñu jàlla mu may ma ma teg sama mbagg yi ca siraat sa xeet wépp dëgg ci jàll <laughs> bi yóbba bi yób bi yóbbante foor waay moo foor pour nun siraat ni mu mel ku am ku fa teeru ba jàllale la ma mosal leen ci tuuti sax jàll mu ngi sewee ni njarwañ njarwañ mooy kawari fas balaa maa dem sax ma wax luy siraat siraat mooy firi pom foo fekk ñu pom nag foo fekk ñu pom fu ne fu naqaree jaar la ku fa jaar taq mbaa nga gaañu moo tax ñuy pom ku fa jaar taq laa wax mbaa nga gaañu salte baaxul gaañu baaxul looloo jur pom comme àjjanaa nga lee ca ginnaaw safara sunu borom tabaraka wa taala xam na ne doomu aadama yeewu na yeewu gu toll ni bari man-man gu toll ni ak watoon sax ëpp na ko ndax wasaa kursiyu samawaati wal aar te wala yuhuduhu irdahuma waaye ci nettali bu làngale woon àjjana ak safara ñu ràññ ni quinze la ngeeg kon mën naa am buñ ci juuxee am kon ne yoxet na ci biir àjjana parax mu fab na sànni ca gannaaw fab safara ñuux nit ñi bu ñu dekkee safara li ñu jëkk ak waaye nag mu teg ca pom ne yéeg leen ci jàll pom boobu ba sa tànk suruxee rek safara nga jëm te pom bi gàttul gàttul parce que junney kilomètre junney at la nga polame ca digg ba junne at la nga door a sant yaa wulit mu ngi sawee ni njarwaj dalul mu ngi yëngoon ni jaan ju ñu gaañ te deewagul moo gën a ñëw jaasi ind gën a lëndëm oxsat wa inna minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman maqdiyyan yéen ñi may dégg yéen laay waxal amul kenn yàlla lay wax amul kenn koo xam ne mas ngaa won naa su sama wërsëg wii waroon na sama asamaan si dëgg si suuf si naan sama ndox mi te doo jéggi pom bi wa inna minkum ila waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil lazina taqaw wa nahzarus zaalimiina fiihaa jisiyya aaya boobu Sidi Abubakar Siddiq bu mag bi mas naa takk di tukki dégg ko koy jàng mooy lox ca fas wa ba daanu bañ ko yóbboo këram feebar na ko trois mois moo gaa yi loo xam ne yëg ko ba problème yi junney at la desantar ba di junney at mu sawe ni kawari fas yëngoo ni jaan ju ñu gaay gën a ñëw jaasi yi xind lëndëme ni ox sa sa sànq rësati rek nga dem jaarama kooku kuñ ko tëkkoo jaar te këla ko tëkku di ku son ko fonke waxam mat naa xalaat foofu la jibril walanteeru ne dina tàllal ay mbaggam ngeen yéeg ci astafurlaa nu yéeg ci boog <laughs> ba jàll waaw xasaali ñu ne ko lu tax nga ne yàllaa ngi fépp benn waay bu mën a jàng benn waay daf ko laaj ne yàlla nag ma mën a misaale jegeñ gu mu jegeñ jaamam mu ne ko faxasal sa tënk mu faxas sa tënk ba mu ne ko dara taxu ci mu ne mu ne ko taf ko ci sa mu taf ko ci yow mu ne ko nekk mu nekk mu ne bu baax laa wax waa ji nekk bu baax mu ne ko bu foor mu nekk mu ne ko yàlla ngi ci diggante bi sa tënk beeg sa jëbi yàlla ngi ci diggante bi <laughs> wa aqrabu min hablil warid mu ne ante yoonu sa ak anti Moustapha sore jamono ga ñu sore jamono ak sore place ga ñuy wax sore place moo ma xamal ne yàllaa nga fépp na bee ngi waxe loolu ca arsh la asna sanaa aleyka anta ba mu jéggee arsh la ko yàlla sànni ci xel mi ni mu ko war a nuyoo def ci xel mi attahiyatu lillahi mooy taaye bi sakkiyatu lillahi tayyibaat salawaatu lillahi loolu la na bi nuyoo yàlla keroog na fekk tahiyaatu lillah fakkiyaatu lillah tayyibaatu salawaatu lillahi na fekk yàlla ni ko asalaamu aleyka aywa nabi wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi doon seetaan réception bi yëpp ne asalaamu aleyna nu nit wa ala ibadillahi salihin bii gan gee ko wax bii ku ñu gën a kii surga si moo tax bari na lu ñuy jëfandikoo ci lislaam bi te lëfa ko fent mu ne nañ ko ci bàyyi di ko employé yaale ndax dox na ku ci xëy wax ko juróomi yoon ci nun anta jenn bi wax anta mooy firi yow bu dee arab da nga jàkkaarloog borom taatombe jooju dafa am tur ñu ngi koy tuddee taatombay waxante ki ngay waxanteel ne ben ci aras di wax yàlla yow yunusa am njuumte njuumte li mooy yàkkamti dogali yàlla waar na ñiñ ko yónni ci ñoom ñu dëgër bopp mu tëkku leen yàlla fekk si ko ca tëkku ga am ci ñoom ñu yeewu yëg ne def nañu motif ñu jàmm ñu baalu ji yàlla avant ñu baalu ji yàlla suñ borom yebal na malaayika mu yëgal ci yuunusa ne ko li nga ma ñaan dinaa ko def mooy neyaante réew mi yaa ku la gëm génn leen suñ borom daan def nag balaa ala gëm réew génne yonent bi fasri bi ba di leylan innakum muttabi'un yaa ku la gëm génn leen mu ànd ak njaboot gi génn ca nelaw yi di daw ba fajar di xaar mooy nelaw guddi ga mu nelaw ba cëg ba ngir sonn njaboot gi tëdd ci wetam ñu nelaw mu ngi ànd ak jabar ak perentel ak kuy bootu ba ñu nelawee ba mu naaj mu jóg ñoqali daw ba une mu yendal an ci ëllëg sa nag saay saay bu ñu wax iblis yàlla nañu yàlla musal ci moom soppeeku nit fekk ko fa nu teeg moom na nga góor gi bokki fan mu tudd dëkk ba ne ko nay na biyu laa jóge mu ne ko na mënu la nekk Yunus ne ko mënu la nekk boobu dëkk war a doon dëkk ba néegi kañ nga fa jógee mu ne ko falaaxi mu ne ko mënatoo la nekk Yunus mu wax Iblis ne ko dëkk booba résisté tul war naa alaku barki biit ca fajar te la yàlla waxante woon na moom Iblis xamu xamalu ko ne maa Iblis mu ne ko ah dëkk baa nga fa ah mu ne ko mënu la nekk laa wax. iblis dal ko ne mbaadu fen yi yunu sa fen moo la jumloo xama fu mu ne waaye bu xama fu mu ne waaye waaye bu delluwaatoon dëkk ba xam ne gor du fen de dama waxoon yëpp dara du ci dëkk dëkk baa ngi ci xiiwal gu rëy rëy ñu ngi ca jàmm ah kooku daal doon affaire ci yunusa mu ne man de mënatuma dellu gor gu toll ni man yàlla yónni ma ma wax ak nit ñi la ma wax dañee noona ñëpp yëg ko noonu dootuma dellu continué nag dog gi seen genn gaal kir yi ko gaal gi langaan mu dugg ci ak njaboot gi gaal gi dox dox dox dox gaal ngelaw a koy doxal mbaa machine képp koo xam ne da nga gëdd sa waajur mbaa nga manqué ko mbaa sa sang mbaa sa jëkkër ca yooyu jamono baa dinay neex nga xam ne bàkkaar day xasaw ni ginnaaw kër di xasawe ba tey xet goo nga xet googaa ngi fi indi xas googu bàkkaar daan xasaw ba tey ngi fii waaye bakkan yee ko miis bakkan yee ko miis booy door a dugg duus dina am lu la xeeñ waaye boo fa yàggee dara dootu la xeeñ fekk mu ngay xeeñe ni nag yaa fa yàgg juum naa sax ne xeeñ waaw xeeñ mënuma ko wax fii ndax dafa këfin du baat bu neex a wax waaye xeeñ mooy loo xam ne <coughs> bu agsee nga bëgg mu dolliwaat safaanam nag gaal ga liis wandaalu capitaine bi def ay moyens gaal ga toppi mu ne attention ku tooñan ci biir gaal gi nañ ko jéem a seetal sunu bopp buñ ko turwee yeew ko sànni ci géej moo gën yàq sunu wayaat ñu def nañ daan def ba xam ku tooñ loola dal ci yuunusa mu ne nag naqar wi ma am ci waxante ak ñuma toñoon digu leen digu ga nax saay ma dugg ci mbooloo mi nara weeru duma ma fi fekk ne sër na ci biir géej dagaj yàlla nag ne jën ba wannal ma ko ba mu xam ne yorul dogal bu ko màtt nag du sa wërsëg bu ko lekk kaso la rek pour yow fa lawla annahu kaana min al almusaddixiina la labisa fi basmihi illa yawmi yubxaruun fa nabasnaahu bi araahi wa saqim وانبتنا عليه سجدة من يقطين وارسلناه الا بهة الف او يسدون فامنوا فمتعناهم الى عين جنبو جنبو ونكو مو دوغي سي بير جبال جات يا يالا نا تريت جيج جي جنبو نا صار مقتل ين خير جنبو نا تراخ سي خير موتاخ فنا في ظلمات خيري دنجكو بول ياغ لي ياغ نان مو اوتا تي لندم يه ndax jëm amu ënnasi saalim la ca lëndëm la yàlla làkk ñu ne kon nag ba ko jën wa wannee weneen jën ko wan na weneen jën ko wan muy ñetti jën moo tax yàlla ne mu ngay may oo walla ca lëndëm ya si daaji Malik mi jëkk yër bayaan fii moo tetti nit ñi ne mën naa doon wenn jën te yàlla làkk lëndëm ya bisimilaay bokk mën naa làkk fanaataa fi sulumaati mu nga may oowal la ca lëndëm ya te mu demee ni jën ñu ne alaaji maa ne muy mën a nekk mu ne jama ci naxwu ak jama ci fiq bokkul mbooloo bu dee fiq ñaar la wal jamaatu isnaani fa saahida ñaar bu ñu wetee julli rek am nañu ngël ngëneeli mbooloo bu dee fiq atte fiq mais bu dee atte calcul ak grammaire foog ñu mat trois ndax tasniye li samay tax moo fa daat tasniye jamaa door a ñëw kon nag bu yàlla làkkee ne mu nga may oo wala ca lëndëm yëpp te jën jën wi di benn tax ngeen ne jën wa jën daf ko wan jën wan na ko mën naa doon wenn jën te mu làkk lëndëm ya ñu ne Maodo na muy amee mu ne ndex mi lëndëm la xeer wi lëndëm la biiru jën bi di lëndëm kon fanaa daa fi sulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nga naan yàlla ca di ko wax ca biir xeer wa ca biir jën wa ca giir géej ga anta mune ñaari ante yooyu ma xamal ne buur baa ngi fu ne ndax kële mënoon naa wax moom moom daal muy buur wala kële ne moom daal muy buur kii ci jiiri ji kañ buy wax ak kii naan ko yow ki ci biir géej di wax ak moom naan ko yow ki ci suuf di wax ak moom naan ko yow ki ci asamaan di wax ak moom naan ko yow looloo ma xamal ne mu nga fépp antine bi jële mu ne laas naa sanaa aleyka anta ak laa ilaha illa anta subhanaka jële ci laa xame ne mawlaana tabaraka wa taala ngi fépp ma ne nag yëf yi sottewul fii du sottee ci ñii mënu la nekk wa yasalunaka anil jibbali xuul yansufaha rabbi nasfan fa yazaruha qaaan safa la tara fiha iwajan walamta daa mos a ba max benn nen ca bama ko muy bëringu ba Dakar dara du ko dogale déedéet du genn gajj du wenn ñax du mennam taax lu benn décentre lu kenn nit du benn pax kara bàyyi boobu wàcce yàlla ne ko xam naa dinañ la laaj montagne yi ak décentre yi fu mu nekk keroog buñ la ko laajee neel maay ngadd xeer yu yi ñu daanu ci pax yi maaraasale leen ba mu de benn nit wa yasalunaka ani jibaali wa qul yansifuha rabbi nafsan fa yasuraha qaan saf safa laa tara fiihaa iwajan wa laa Moustapha mii leen tax a fanaan fii tax nu fee fanaan moo fekk Yunusu ci biir jën wa wallu ko daan naa wax ni général bu motivé motif bu tax ñu dégradé ko nangu koor bi mu yoroon ak commandement ba tëj ko moo moroomi généralam di làkk ba ñu tijji ko muy làkk ba ñu dellu ko gradé muy làkk ba ñu joxaat ko commandement ba mu doxal ko général bu mënee leen loolu nawlab généralam deuxième kanuñu bu ne ci quartier du ko jaaxal. maa ngi ci actualité bi bu ma demee ci film bi rikk waay gaay yi ku fi indi woon lu fi nar a des fexeel bu bul ñibbi di ko yóbbu yaa di moy naa dal am nañu ay garantie yu jóge ci rasulullahi wax naa leen léegi benn bu jóge ci jibril alayhi salaatu wasalaam am nañuy garantie yu jóge ci mawlana tabaraka wa taala ak yoo xam ni ulamaaw yu baax yi di fuqaaw ñooñu ko bindal bii may bëgg a wax ci ci la dama ne ku koy garaat bu defee motif bu tax ñu dégraté ko arrêté ko ak ah, nii la commandement am sénéral ni moom di làkk di làkk ba ñu ne ko tijjët ci biir kaso ba muy làkk ba ñu safar ko garaat ya muy làkk ba ñu delluwaat ko service ba ma ne général bi mën a loolu nawlab général am deuxième kaluñe deuxième classe bu ne ci quartier am du ko jaaxal ñun deuxième classe la ñu ci quartier Rasulullah waaye 313 yépp ay général la ñu ku ci ne mortifié nga nag mam adam mi nga xamne mo jur ñep moo jëkk a def motif téere na ni sax li tax yàlla sétan adam ba mu togn ko moy da doon joxe exemple ndax bu fi nekkon ba juk fi togn ko ku togn yàlla do xam noy def ba mu bal la waaye mo fi jëk mu fexe ba mu jëk ko togn won ko ni ñuy balo ku tooñaat jaar fa ñu bal yentel Muhammad do wax ak yàlla ba mu bal waaji ma di la bëgg wax di yentel yunus فوتام با تي گيج تي خوروا نبي نك لير تك كف دف الهام الا يي شي خال لوي دف في دا ما دف نانغام اك نانغام مو تخ ني تيج مي في خنا خامولا نانغام اك نانغام اكسا الحسن غاغن سي نما سيراج ماري دافا واخ سي خلا سي نونيي بي ني بي تا يا بي تا تا الله الله يا بي تا تا الله yaay yaay bihi taabal mawdana bihi taabal mawdana yonana bihi taabal ilaahu alal mawdana bihi taabal mawdana yonana bihi taabal يونن به صونون موتن يونن به بيسرون يا يونن به قالن موتن به يا خوبم يا يونن به لوطن يا يونن به عاصم موتن به صنجوب جم ما المكافه زور فلك ما ودنا به موسى جل مكافه زور ملك ما ودنا به نلنا ما ودنا دائل أدانا ما ودنا أنيلو ما ما ودنا إذ الإيمان گورنر أخرجنا رشدنا من كل دين مودنا دها من لم يجد جعلا مودنا فمؤتمرنا يقبل مودنا على المغتر ميننا ولم يغتر سيدنا وبالهادد مودنا وبالإرسال مودنا وقل قريشا وقل أرابل مودنا وصدق القول جول مكاس فيهن سبوة مودنا هدى يا دي المدينة مودنا وفي هجر مودنا فساك الحكم في الخير مودنا لهذا Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, به منا سنذكر كل دين يا به بابا إلى على أبينا به صنون زي البادنا وكان سيدي أسان جزاك الله وانا خيرا bari سيدي هاجي مالي lim léegi bi xale yi way di bihi bihi yooyu bu ci ne dafa am lu muy firi defe naa bii taabal ila wala bi naa jiitu lu ci tegu waaw kañ boobu la ma Sidi Xasan fàttali maam Adama alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam ne bi jaayi Muhammad alsaxeer ga gu ci ne bi la dellu arafu jar woowu moom la jar bihi bi barakati rasulillahi taabal illahu ala abina bu ñuy nga defar boo ko ma bëgg a juddoo léegi sax par jour par jour ñaata tere góor gu sell googu genn ak tere rek la def genn ak tere ñu déq ñu dàq ko futti ko futti ko ba mu def yaramu neen na mu juddoo woon ñu wàcc ko iblis genn ak santaane rek la bañ genn ak santaane rek la bañ ñaata santaane nga gàntu par jour laay wax bi gantu genn santaneem googoo ko jural fa innaka rajim wa inna alayka laanati illa yawm alqiyam xamme ngeen defuk tere ak gantub santaane ku bari lu mu dépensé ci l'islam la ci tariqa bi garab gi bu ko laal ah Adama àjjanaa nga fu la neex indul fu la neex fanaanal ñett ya fa gën a bon ku gaañu moo gaañ xër kañaan rëy moo àjjana ni mu yaaye ku gorul yettul ñu xëy na la duggal fu la neex lekkal fu la neex fanaanal fu la neex waaye bàyyi fi genn garab gii